mutuelle bi euh, ñetti catégorie ñoo ci mën a bokk mutuel mu ngi tudd mutuel de santé des agents de l' état képp koo xam ne fonctionnaire u mun nga ci bokk ku dugg fonction publique rek corps boo munti nekk muy enseignant muy gendarme muy policier muy sapeur muy service d' hygiène muy service agronomie yeeg yëpp képp ku dugg fonction publique mën nga bokk ci mutuelle képp koo xam ne da nga bokk également ci collectivité territoriale yi municipalité yi conseil départemental yi mën nga ci bokk donc am nañ ay mairie yoo xam ne Rufisque Richard Toll ñoo xam ne mairie yoo xam ne jël nañ seen i adhérents projet boobu bokk na ci Mbacké ñu ngi ci doon dox ay jéego bu baax a baax xam naa ni du yàgg léegi mairie Mbacké également seen adhérents seen travailleurs yi dinañ ci mën a bokk bu soobee Yàlla euh, ñi nga xam ne dañu liggéey ci les entreprises nationales également dañ ciy mën a dañ ciy mën a bokk donc ñetti catégorie yi ñoo ci mën a ko bokk donc xam nga agent de l' état état ko war a faj moo tax système imputation budgétaire état bi mun na ko jël en charge ba quatre vingt pour cent ñu créé bi depuis deux mille trois ginnaaw état bi mu génnee décret ne mun nañu defar ay IPM donc ñu ne léegi dañuy jël complété pour cent yi nga xam ne moo des mais jëlaale également cinquante pour cent médicaments yi comme ça euh, adhérent bi dootul fay dara ci hôpital bi mais bu génnee garabam xaaj bi rek lay fay comme ça dimbalal ko mu faj mais yemuñ ci adhérent yi rek parce que ñi dul adhérent dañuy def ay programmes sociaux pour toute la population porte ouverte yi comme euh, euh, dañu am ay structure de santé léegi di am ay cabinet dentaire am centre médico social euh, structure yooyu noonu li ci gën a am solo du wut xaalis mais dimbala askan wi ñu faju la donc ci la ñu defaale cabinet dentaire bi fii léegi nag ñu jël programme ne léegi dañu bëgg alxamis bi di ñëw ak ajjuma incha allah donc ñu def ci journée porte ouverte def consultation gratuite ku bokk ci mutuelle bi ak ku ci bokkul yëpp ñëw mun ñu xoolal ko ay ay ay bëñam fii ci agence bi également may ko ay garab euh, dimbale ko ci ci faju lépp lu jëm ci santé bi ko dentaire ci faju ci faju ci faju muy alxamis ak ak ajjuma waa di woo euh, population Mbacké mais même également yeneen zone yu gën a sori mën nañu ñëw ndax cabinet bi buñ ko xoolee nañ ko gis léegi matériel de dernière génération boo xam ne mutuelle bi ak ay relation ak liggéeyu bureau exécutif bi ñu dem am ay partenaire indi fi matériel boo xam ni boo demoon di faju bitim réew boobu nga fay fekk ñu indi ko donc yombalal la ko euh, ne la léegi nag euh, même bu dul euh, xew-xew bi adhérent moom day indi lettre de garantie mu consulter wu ku dul adhérent mu ñëw mu fay 1000 francs mu dem consulter wu tey nag ñu ne bu ne porte ouverte yooyu yëpp sax da ci dul am da ngay ñëw ñu xool la mais da ngay ñëw ñu may la garab te feebar bëñ dañ koy saggane waaye lu am solo la ndax bëñ bu dañee ci yow rek dafay wàññi sax sa kàttan voilà te léegi nag bu fekkee ni bëñ bi teel nga ci jóg loolu yëpp mën na la ci waaye soo bàyyee nag ba mu àgg ci jafe-jafe foo xam ne dindi rek lañ ciy man dindi googu dafay wàññi sa donc mun nga sàmm sa bëñ boobu mi ngi wér wala boobu feebar bi ci bëñ bi àggagul fenn moo tax ñu ciy woo ñëpp nañu ñëw ñu jàpp également occasion la ñu ñëw xam cabinet bi visiter waale ko xam matériel bi ñu am xamanteeg docteur bi parce que chirurgien dentiste bu mag lañu fi indi macha allah am na mutuelle bi moo jaayante ba indi ko fi pour faj gi gën a gën a ñoom gën a baax donc daal ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp ñëw taxawu ci incha allah. centre médico sociale bu Ziguinchor généraliste bi ñu am mu ngi jël service le premier bii nii docteur Diouf le premier bii nii donc bu dee boo demee centre médico sociale bi nekk Néma dañuy def euh, consultation de médecine général dañuy def échographie également dañuy def santé bi bucco-dentaire donc loolu mooy euh, yéene bi maanaam dañuy tàmbalee ci cabinet mais buñ paree. programme bi bokk na ci ñu am ophtalmologie ñu ngi koy xalaat ndax suñu adhérents yu bëri ay jàngalekat lañu donc euh, au des années ñuy liir ak ñuy kii da ngay gis ni seen bët yi day am jafe-jafe pour l'instant mutuelle bi def na ci ay jéego yu mag defal leen forfait lunette mais suñu yéene mooy ba am ophtalmologue boo ñoo koy recruter dem ba am euh, vitrine boo xam ne ay lunettes yi fa lay nekk mutuelle bee koy moom pourquoi pas mu dem ba mun a joxe lunette gratuitement ñu am généraliste mais ñu am aussi sage-femme boo xam ni Euh, mooy saytu jigéen euh, la santé maire enfant ñu mën ko di saytu bu baax a baax loolu mooy yéene mutuelle bi am nañu projet également bu mag def euh, Jibalor am nañu fa terrain mag boo xam ne yéene bi ci bureau bi am mooy def ko clinique bu mag muy dimbale mutuelle bi mais di dimbale sax waa Sénégal yëpp ak même la sous-région mu mun fi ñëw di fi faj incha allah. dañu amoon d'abord benn bureau bu nekkoon Dakar lépp lu newoon ci mutuelle ci région yi dañ ko doon yóbbu foofu donc mutuelle bi màggee yu bëri mënatul nekk. mu doon am encombrement donc il fallait désengorger donc ci la ñuy def service déconcentré yóbbu leen ci région yi donc li tax ñu choisir Mbacké région yëpp ñetti région yëpp ku ci nekk mérité na ko la bëggoon na ko déjà euh, euh, si euh, population bi am na ci solo donc nombre bi mais également en emplacement géographique am na ci am na ci solo Carrefour la accès bi yomb na fii mais également dañuy wax ne agence bu ñu bëgg a defar dañ koy defar benn cabinet dentaire donc cabinet dentaire bu ñu koy installé te dinañ xool également ci gox yooyu yëpp ñaan ñoo ci gën a soxla véritablement cabinet dentaire donc bi ñu xoolee gis nañu tamit zone Mbacké problème bi ko dentaire dafa nekk problème bu bu mag donc loolu tamit gën na ci jouer vraiment ñu indi ko beneen facteur mooy euh, vraiment dañuy saluer doyen yi fondé woon mutuelle bi mais sooy xool ñetti section yi actuellement donc doyen Ndione bokk na ci l'un des plus anciens il était là depuis 2003 facteur boobu tamit ñàkkul ni xëy na euh, euh, joué na ci donc également yeneen yeneen yeneen facteur mais liñ ci mën a jàpp daal yooyu mooy yi gën a yi gën a mag